pourvoi Ousmane Sonko ak ndam lu yees loolee nag la l'observateur xëy daal di fësal ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di xam ne ni moom Ousmane Sonko Ousmane Racine Thior mii nee na nañu ko dugalaat ci list électorale yi loolee nag la ñu dogal démb ci tribunal bu grande instance bu Ndakaaru saison 2 bi nag ñu ngi koy xaar ci cour suprême yëglekaay bi di Le Quotidien moo ko xëy daal di fësal ne état bu Sénégal jamono ji nag fa yéene wu bàyyi mu sedd ndax daañu yóbbu mbir yi nag ca cour suprême Vox Populi nag xam ne ni Sonko am na ndam ñaari yoon ci kaw état bu Sénégal juge Racine ndakaaru moo daal di dëggal la saba si fay jëloon ca Ziguinchor yéenekaay bi ne Ousmane Sonko moom ma ngay santaat yàlla maître Ciré Clédor Ly na ñaari yoon a ngi nii nag yoon di àtte di jox dëgg gi Ousmane Sonko ci kaw état bu Sénégal kon nag jot na ñoom état bu Sénégal ñu daal di bañ a am gàcce te bañ a am yaakaar gu tas daal di ànd ak grandeur te nangu li nga xam ne rek moom la ñu dogal maître Branco di ko feelu te naan ko nag pourvoi en cassation boobee ñu bëgg dem nag dañuy sonn rek dara mënta soppi nag dogal gi nga xam ne moom la àttekat yi ci enquête yëglekaay xamle ni naam Ousmane Sonko am na ndam waaye jeexagul de ci leader bu Pastef maître El Hadj Diouf di xamle ci biir yëglekaay bi ne juge inférieur moo daal di défier ab juge supérieur waaye nag ma ngay leeral ne du ñu bàyyi mu sedd ndax daañu ko yóbbu ca pourvoi en cassation ci Sud Quotidien Ousmane Sonko mu ñu delloowaat nag ci biir list électorale yi ginnaaw dogal gi bàyyeekoo ci Ousmane Racine Thior ngir nag li ñu ko jëlee woon ci list électorale yi moom Ousmane Sonko verdict ba wadd na démb ca tribunal bu grande instance bu hors classe bu Ndakaaru daal di xam ne moom Sabassy Faye jëloon na ko ca Ziguinchor Walf Quotidien nag di xam ne ni jamono ji kay Ousmane Sonko moom ñu ngi koy ping pong bu baax a baax ci ëttu yi la siglekaay ne Ousmane Sonko gañe na bataay bi yoon daal di cay jaaree siggi ginnaaw ŋàññ yi ñu ko doon ŋàññ ni moomul boppam nag waaye nag avocat yi nga xam ne ñooy layool état bu Sénégal nee ñu nag des na de yëf yi kay moom jeexagut benn yoon Ousmane Sonko nag dina des di doon ku ñuy dàq ci liste électorale yi Ousmane Sonko am na ndam lu rëy waaye nag loolee nag bi di Les Échos daal fàng ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi ne avocat yu état bu Sénégal fas yéene wu ñoo bàyyi ña waajal nag yeneen i ngir yóbbu ko ca pourvoi Jean-Luc Mélenchon fësal mbégte mi mu am nag ci yor yor bi nag Malick Gakou di xam ne ni peuple bi rek moo am sañ-sañu nag di tànn ki ñu bëgg mu daat leen di jiite ci élection présidentielle yi ñu dëgmal bés bi le jour ne recours suprême Ousmane Racine Thior def na ni Sabasy Faye maître Ciré Clédor Ly di yëkkati ci bés bi le jour ne am nañu yaakaar ne chambre yi a wàllum démocratie fii ci réewu Sénégal maître El Hadj Diouf di xam ne ni nag moom kay def leen lu leen neex rek waaye ndam li moom dana gàtt ba mel ni ndam li ngeen amoon ca Ziguinchor moom robe noire boobee nag ma ngay félicité bu baax a baax nag yoon ak ni mu doxalee jàpp na ne nag lii dafay wane ni indépendance ci wàllu justice nag am nañ ko bu baax fii ci réewu Sénégal réew mi people la ñuy àddu jëmale tey jii nag artiste chanteur bi di Wizi Kana moom la ñu fa dalal parcours am ak jaar-jaaram talent bi mu am ci wàllu musique loolee lépp nag séq